ci suñ teewaay ajjuma jële du du ñëwee ñun dañuy njaboot Sëriñ Tuubaa di njabootu Sëriñ Muntaxaa Sëriñ Muntaxaa wër biti njaboot yi yëpp moom jàpp nañ Sénégal yëpp ay njabootam ku ci boppam métti rek dana ko yëg ku ci ne ci jàmm dana ko yëg te lu mu yëg rek dana ko yitteel loolu moo tax ba alal ba jële mu woo ma mu jóge Poroxaan ma monsieur Mbacke Poroxaan ne ma eh, eh, na nga jullee si tisbaar Touba jullee si fa tisbaar ci kër gi ba ñëwee fekk maître ma digg ña ngi toog fekk Mamadou Diop dëkk laa toog fekk Makhtar Sourène toog fekk Cheikh Bachir Mbacke ma ne sama doom yi bañ leen toog mu nuyoo ñoom toog yaakaar ni dañoo siyaare si ñu toogee tuuti sëñ mu taxaa génn ne nu yéen de dama leen bëgg yónni yaakaar naa bu ma leen yónni ku leen gis xam ne samay ndaw ngeen ndax ku taat soral ma soral mën naa wax moo doon awar kaaf sëñ Tuubaa moo doon secrétaire bi sëñ bi nekkee ba bi ñu fi jógee lim daj ci yoon yi ba nga xam kon bu di sëtam ci njabootu sëñ bi waa nga bokk ci kon jiituwul ci moo di jóg nii ba am yaa ba jóg bu dul woon ak moom taaw sëñ Tuubaa dana dem ci guerre ba te mën naa am des moom moo futti ko doomu sëñ Tuubaa bu nee dem ci guerre moo wuti ko kon kooku ci njabootu sëñ Tuubaa la bokk ma dikk ñaam yi dama ko wax léegi ne ne naa ko ñii ñoom seeni baay ak seeni maam ñoo sonn ci yoon ba amul cër yow nag sab cër yaa sonn ba am sëñ bi ko xam ne léppam sëñ Tuubaa lu mu jàpp lu mu rëy bàyyi bàyyi bàyyi loo kon kooku taalibe sëñ Tuubaa la njabootu sëñ Tuubaa la te bas ma ak sëñ bi ñoo bokk benn bâche moom Bachir moo leen jur muy ingénieur agronome sëñ bi ne dama leen boole kon yéen ngeen demal na sama njaboot ndax réew mi tar na fi mu ne yëngu-yëngu yi amoon na dem dëgg naa ci bakkan rot na ci ñu gaañu ak ñu te ña ngay waaj leneen dal nag man mënuma koo seetaan mënuma koo noppi dëgg la man li ma fi bàyyi du noonu acte politique fàtte nit ci politique xool na nit ci politique loolu bàyyi moo fi sama cër li ma fi bàyyi moo di da Sëñ Tuubaa liggéeyaloon yàlla dara du ca yàqu loola bu agsee du ma ca ñaan du ma ca maslaat du digle ndax laay nekk ca laay nekk loolu ñëpp te loolu topp naa ko ba yaakaar naa ne boo bëggoon sama borom defe naa ne am naa ko nit ki nag muy sàkku ci yàlla ba am ko bu yaafusee mën naa tëdd nelaw waaye bu ma tëdd nelaw di ndax ku am njaboot noppaloo ku am njaboot moomatoo si bopp te réew mi ñu fi am dafa mel ne ci sama xol bi la ne bëgg ngeen dem ginnaaw nga xam ñaar ñii Mamadou Diop ak Makhtar Sone samay ndaw lañ ba noppi ñoom xam nañ la xew ci biir ndax bokk nañ ko yéen ñaar ñi ngeen ànd seereel ko bu ñu demee xamal ne leen dégg naa lépp am naa ci naq am naa ci gis waaye nag kër yi ma yàlla seet dama koy teg du mun taxaa du suñ mun taxaay wax ak ñoom du xalifa général de Mouride mooy wax moom waaye Mountakha Mbacké seen citoyen sénégalais boo xam ni Sénégal la ko ñëw Sénégalais lépp comme Sénégal la am amul leneen amul feneen mooy wax ak ñoom ne leen lu mu tiis tiis ak lu mu métti métti ak lu mu tar tar nañ ma sedd ci lu may ma dalal jàmm ay fan luñ ci man du topp lu leen naqari ak la sabab lii ñu def ko bala ko sabab jeex ñaar nag ñuy bëri ñaar ñuy daje ñoom samay doom lañu ñaan naa leen lii sama doom jeneen jëjële nga xam ne ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo bokk lii nu leen ñaane ñoom noonu laa koy ñaane ñaan ko moom it lu mu jàpp gas ko te suul ko te lépp luy jàmm ci réew mi ko def ndax kat ñëpp war a sàkku jàmm wut waaye moom mooy ci ndax boo xasee jiitew réew day naan lu ay yow man mii ñëw jiite yoonu murit mais day naan loo loo am rek ñu gàtt xel te gëmuñ yàlla delluwuñ ci yàlla dañuy def leen lu mu am mën ndax jiit boo mel noonu jiit tamit moo diis waaye moo ñu ma leen ñëwee ne ñoom bu ñu ma mayee nan laa ko ñaan sama ñaari doom rek dañ nag ñu jot ku ma ci may danaa ko sant gërëm ko jàpp ñëpp ñëpp yëg ko ma ci may danaa jàpp loolu xam ko ñëpp yëg ni ñaan ñëwee itam ba laay xam ñu ngi ci fekk ñëpp ni ma ko waxee keroog jiw naa ci sax ba ne lañ bàyyi Touba lañ fekk fii nag Touba bu doon mu nekkoon Touba moom du ñëwee toog ci kaw waaye waxin la rek waxin moo di yar ba ak teggin bañ bàyyi bañ bàyyi Touba ak bi buñ ñëwee fii ci saal bi ñooñu fekk ñëpp. moom lañ yor xam ne wuñ buñ naan dafa tàng buñ naan dafa dëgër bopp buñ naan dafa noppi dara naan dafa reew ñëpp lañ ñëwal ñëpp ñu wan sëñ bi yar ak teg lan la ñaan teguñ bu baat Ousmane ñi wax waxaat nañ ko léegi ne sëñ bi moom duñu ñaan dañuy digal ñu def noonee lañ ko def te yëgoon nañ gaaw ba lañ te nar wax nañu lay lay ak lañ ci wax lépp waaye lépp ñu ne teg nañ ko ci dañu defee noonu ñu sant sant leen gërëm leen ci turu ñu defee mag ñi mu ànd wax sëñ bi liñ fi jëme xolam set lool mu bég lool amaat yaakaar lool amaat itam yàqin ci ne Sénégal gii yàllaa ko def ndax kat su réew mi fii am réew moo xam réew yu bare ne réew moo bu fa àggoon du du wees waxuma laa nag mu àgg fii ba noppi benn baat dañu jël di ko may di sara dana gën a amaat yàq ni Sénégal yàlla mu dajale wax ne nañu na Cheikh Amadou Bachir jot li ngërëm ak cantam ñi nga xam ne danoo yandi woon ci ñoom wax foo ko taxawaay bi toll wax itam seen jëf dimbalee ci moom ndax xam na diis ga xam na itam liñ muñu ak liñ toggoo ndax wax nañ ko lépp waaye lépp ngir jëmmam ginnaaw yàlla tax ñu nangu ko loolu moom réy ci moom lool xamal ko ne ko itam euh, loolu ca dimanche teel waaye samedi ja maa dañoo jiitu ndax biñ ñu waxee fukki points yi nga xam ne ñëpp di wax na ko léegi dama ne ginnaaw li ci am lu jàmp loo xam ne jàmp na li ñuy nekkaar lañ dëkk maa ak sëñ bés nañ dem wax ko sëñ bi ci ndax ndax bu dee taxaw mu taxaw ci léegi ndax ginnaaw ñi kat am na lu ñu def yooyu fawam bi góorgóorlu am mu gën a gaawee di ko waxee bi ñu la dimanche bañ bañ ko waxee sëñ bi rek dafa wax ni saa ba saa taxaw yow kat da ngay daal dem ci président wax na mu ji ne bu daal mënut a jàpp lii li nga xam ne daal wax nañu mooy indi jàmm lu mu ca mën ak lu mu ca mënut dama dimbali ngir yàlla def ni ma ko ñaane ñee bañ sarat laa noonu laa ñaane noonu laa ko ñaane wuti mu góorgóorlu fexe ba may ma ca xam ne dana indi jàmm ak salaam loolu nag sëñ bi nee na ñaari yëf moom ñaar rek diine bi ni ci diine jaamu yàlla di ànd nag njaboot bi ko jaamu di liggéey ngir yàlla yaakaar yàlla tey moytu te jub yéenente jàmm te waxtu bu ne ñooy liggéey di góorgóorlu ngir di di mën mën a dundal suñu bopp ndax bu ñu dundalee suñu bopp rek mën dundal suñu islam loolu la sëñ Tuubaa bàyyi loolu digle woon loolu la sëñ bi ne moom mooy cëram boo xam ne du ci maslaa kenn du ci ñaan kenn du ci du ci du ci sàkku numéro kenn. kum ko seet na rek bu àggsee di ca maslaa da lay digal beneen cër bi itam yàllaa ko dogal mooy bopp di bokk réew mi te politique bokk ci liy dundal réew bokk ci liy doxal réew ba tax na moom taxu koy jóg ñëru waaye mënu ci mucc ndax njaboot mënu ci koo tànk mënu ko woon ginnaaw waaye kat lam ca moo di lépp loo xam ne da koo nar dana ci taxaw sem kémtalaay kàttanam baatam ak kàtt ak ak ñaanam lépp loo xam ne itam day tax mu defar dana ci taxaw kémtalaay kàttanam te lépp loo xam ne nii xalaat la boo xam dañ ko ko soxlaa ci wàllu boobu dana ko wax te bu koy waxee ak laago yi rek da ci jub nga xam ne kon ñaar yooyu daal moom mooy mooy cëram moo di ndigal li nga xam ne mooy wàllu islam bi ak recommandation ak conseil yi nga xam ne koo ko laaj ci wàllu bët bu ci amee xalaat dana ko wax def ngeen demee nag ba nga xam ne tëna naru leen a jubóo wala nar naa indi musiba mu solo dàllam la mu ca mën mu ak la mu ca xam ne lépp mu def ngir jàmm am ngeen daan fu ngeen daan moom wax na ni euh, moom ñi nga xam ne rek moom lañ leen wax wala saa su mooy ñu ko sëñ Abdou waxee léegi démocratie moom ci téere yi rek la ko jàng la ci des yéen la dégg ngeen di ko wax waaye da dama ñaan yàlla daal moo di yàlla def moom jàmm ba noppi jàmm ci la lépp xëy waaw boobu ngeen da ngay démocratie waaye da ngay politique ñu tëjante bopp féetalante sànnante ay lu ak fenn bu sot ñu mu ñaan daal moo di jàmm am ba noppi démocratie li ñuy ñaan mooy kenn ku nekk ci am bët am ngay xalaat gis-gis ak doxalin boo bëggee pouvoir nit ñaa ngi yat du ko maye xeer du ko maye carte moo koy maye ci biir réew mi bu waxtu wa jotee bu waxtu wa jotee waxtu yoon wax nga dem ci nit ñi boo bëggee nii la mel nii la mel nii la mel lii ci sama xalaat bu ko yoree nii laa bëgg a def nii laa bëgg a def laa bëgg a def yéen ñëpp ngeen dajalee nit ñi ba noppi nag jàmm am na ngeen kenn koo xam ne kii la jiw wax doy na la nga sànni ko kat kenn koo xam ne kii la jiw wax doy na nga bañ ko sànni kat bu weesoo kenn koy dem du du du su ko di dundal am di bokk nag. adduna la ma réew moom li may ñaan yàlla nee na xamul luy démocratie waaye bu sañoon noonu lay demee bu sañoon daal ñi politique jàmm dem ci nit wax ak ñoom boo ci wax ba mu ànd ak yow woote jotee mu woote woote lee woote boo xam ne dañ koy teg ci anam bu leer fuloor du am naayoo du am weddante du am ndax loolu la jëm mi lu leen nag kenn liggéey ku ne fa nga féete réew mi boo ne nga def nga bàyyi ñu ne noonu la gisee démocratie te gis bu gàtt gisul sëriñ bi waaye noonu la ko loolu la ñaan moom ndax xam na ni bu amee jàmm ne nañ ñëw ñu ñëwee ñu xam ne moom nekk lu yàlla rek dafa nekk yàllaa ko ñor yàlla lay dund yàlla la yaakaar yàlla lépp da lay xëy di ci gon yàlla moomu nag ngeen bokk ca daj ku ca nekk nag moom nekkul ca leneen ku nekk ci leneen te loola gi ne ci du ko tànkam du ko wan ginnaaw lu mu jaxam ci defar ak rafetal dana ko def waaye di ca weesu defar di ca weesu rafetal di ca ànd kenn ci luy ñaawal wala lay yàq ñu ñu wét donc foofu foofu rek la yoo xam ne fa la fa la fa la féete du fa jóg mukk kon nag nañ ko nañ nañ ko féetale foofu lu leen mën di dégg ak lu leen mën di gis ak lu leen mën di wax xamal ne ñun taxaw moom muy guddi muy bëccëg ci laal rek la ne ci liggéeyal yàlla la ne liggéeyal suñu tubaab ci la ne ak bëgg jàmmi réew mi ñu defaree di ak ak ak di rafetal loolu ci la ne guddi ci la ne bëccëg loolu moo mu ne ñun dañu ñëw dañu ñëwee itam ñaari yeeg la nañ leen sant gërëm leen ci jiitu ndax keroog kat ñu bari xëy na siiwaluñu ko ndax ñu ni ñu waxee bañ la mu wax rek mooy sant ñu gërëm nga xam ne dañoo yëndu woon ci ñoom ba ñu waxee ba noppi sax. ba mu duggaat ci biir dafa woowaat ndaw ne ko boo demee naa na nga wax suñu Bassirou Abdou Khadre ne ko sant bi mu leen sant dina ko yokk man fi am naa ndax li ñu ma defal rëy na ci man lool waaye nañ na leen soñ ñi def ñu gën a góorgóorlu te rafet ci man jot te xam ni ñu doone sama doom ne ko ñu ne doom doo doon keroog am doom mu déggal am doom mu déggal ku déggal sa doom ku déggal sa baay ñëpp dinañ ko xam waaye ku déggal sa baay ñëpp dinañ ko xam yéen nag yéen la njëkke déggal ngeen ko may ngeen ko ceeb tontu moom gis na ci moom métti na ci moom la ko def kéemtalaayal kàttan ba sëñ bi du wet moom du tëb tëb rek tëb daal di sañee rek def nii da am fu muy jaar ba agsi ci moom waaye fas na yéen lu agsi ci moom lu ci mën ak lu mu ci mënul dana ko def ngir jëmmi sëñ bi ak mi kon nag moom xelam dal na ci loolu li ngeen ko wan jëf ko ba moom ne nattab des la leen nag li ngeen ko wut tam di ca rek loola rek da koo def cër bu rëy rëy rëy bu cant bu réeree ak mbégte bu xam ni wax dëgg yàlla def ngeen ko bàyyi def ngeen ko dugg sa di ngeen ko jël loolu la nag boobu ba tey ngeen ngeen di teg di ko dégg ngeen ko ñaari woon kon ne na ko moom moom nee na ci am néeg la ne woon te ñee sëriñ boo xam ne fukki nit dañu ne ñu def la ñeent fukki nit ngay borom kër borom kër méthode yooyu suñ bi xam na ndax tey moom jaar na ci daara xam na méthode xëy na ngeen jaar jaar waaye moom dama fi jaar foo xam ne xam na luy méthode ci xam ne koy man nag xam na ni loolu lépp am na waaye nag ginnaaw da ko mooy wax ak doomam jee te nam tolloo ak fa mu ak la mu mën lu jaar nag ñëpp xam na ñëpp xam nañu bu demee ba xam nag may na ko ñu xam ne lii la ko may waaw bu bu bu bu ko mayee loo xam ne jàmm mën na ci am bu ba bu boobaa sëñ moom ñu xam ne jaanam wàcc na ni ko xalifa waxee li mu war a def def na ko lu mu war a wax na ko li mu war a dox dox na ko yéen seen jaan wàcc na la ngeen naroon ak la ngeen naqari woon lépp def ngeen ko suuf di déglu sëriñ bi. nag genn wàll gi rek moo ci des na googu rafet na ci jot ndax xam nañ xam nañ sër biñ ko jënd sedd xam na ni xam nañ bi sëriñ bi xam nañ itam li ko yàlla may ñun ñun mu ñu bokk rafet na ñor njort maye suñu loolu bokk ndax cee dafa yomb yomb ndax ne ni ma ko waxee keroog rek bu fekkoonte ne jàmm dafa nekk ci loxol sëriñ bi keroog ba bala bi tàkkee ne jàmm di am waaye ci loxo yàlla la ne ak doomu aadama yi nga xam ne yàlla da leen a bind bind leen ni mu leen binde ñu ñàkk a xam ñu xam ñu dajee nga xuloo ñu dañ def def yëpp ñu def ci ñoom la ci ñoom la aju kon nag loolu rek laa amoon ci gàttal gàttal mos a guddal naa waaye bu sa kilifa yónni nag mu ñëw kilifa yi tax ni yéen ngeen defal ba teraanga ñu tamit yéen ba yéen ba dara waaw mu seeral ko ñëpp ñëpp dégg ñëpp yëg mu xamal ñëpp itam fa mu nekk ak fa mu toll ñu xam ko a réew mi yàlla nag moo bind réew mi réew mi ci bind bi ko kon ab liggéeyam réew mi di cee bokk dara ci waaye moom it lam ak am ca war a yem loolu lay def loolu lay fa lay yem bu seetaan ne mukk xam ne da koo wax ndax moom man mën koo def li waxu ko may def bu fekkee woon luy rafetal la ak li luy defal loolu daal ni ma ko waxee sànq noonu matuñu ay ndaw ay dong rek lañu te mës a gis dong buy tari te du jëm te mës a gis élève buy tari te son te du jëm waaw maître bi sëriñ bi rek xëy na ñu ngi yàlla jëm dañu jëm xëy na li mu sëriñ waxoon lépp junj na ko mënu na wax lépp waaye boo demee ngeen amul xam-xam ngeen yàlla may na leen léegi junj dana àggale wax ñu ngi leen di ñaan rek ngeen jég jég ngeen ngeen ngeen ngeen jéggal na ci bu ngeen ci desee dégg te dimbale nañu itam wax rek li nga xam ne wax nañu ndax kuy defaree kuy guddalal maam gàttalal rek moo lay wax ñu ngi noonu noonu ñu ngi koy sàkk la ci mooy sëriñ bi. fi waxoon ne daanaka ñu ko defoon ci mbas mi amoon lii nekk dina loo xam ne bu sama sañoon sax gën dugg ndax ku xam sañ mun daa xam moom lépp lu muy def bëgguñ koo gis bëgguñ ko koo ku dul yàlla ñu ko bind di tax mu def waaw xëy na nag noonu noonu amul solo mooy nisar yi na nisar yi daf di lekk waxtu bu ko nekk waaye sëñ bi moom loolu du du am mbiram euh, benn misaal rek laa jël xam kilifa bu baax bu fa ñëwoon ñu ne ko siyaare ko yéen doog moom koy def ni ko yow de sama mag man dama euh, lot ci oto bi daal ah, dama bëggoon nga nga may ma oto muy demee ci taalibe yi ak li di ko liggéeyal réew mi dañu ne ko oh, baax na dégg naa loolu moom daa daan jóg nag boo ko defee nag naa ko yóbbu ca tere ba nga daj leen ñu ne tubaarkàlla man du ma doxe noonu naroon na ko waaye defu ci dara kon kooku xam ngeen lépp lu mu def ki ko bind rek tax mu def kon bu sa lu mu def lu ne ci lu baax te yàlla tax na mu bokk waaye ginnaaw da ngeen nit xabaar ngeen da na ma chèque bi ne ma naa ko ba ñi nga xam ne seqoon naa ñoom liggéey bi ñu waxtaan ba xam ni koy joxe ak ni koy jox waaye jox na ma ko nag gën na ci na ma ku mooy li tey ma joxe ko mooy waaw ma waxtaan ci ñi nga xam ne ñoom laa ko seq ba xam wan wan yoon laay jaar fi ma fi ma jaaroo rek ma jaar loolu daal ci gàttal laa mën li may dal ci xale bi li may dal ci wax ji naa conclusion bi yéen a koy mën a tudd ñuy ko ak waa presse ba sëriñ moom ji gerte la xam bay ak ak góob ak jàpp loolu moom bu doon loolu moom maa leen ci mën parce que bu doon jàng alxuraan yi dama am na ci ñoo xam ne maa leen ci mën Ousmane Keroog mi may mi may dimbali ci firi benn aaya xam ne kon léegi ñëpp sëriñ lañ alxuraan ñëpp ko alxuraan ñëpp ko bokk xam-xam ñëpp ko sàkk rek am waaye nag gannaaw li ko sëñ bi wax ni mooy yàlla rek jàng di jëm ci yàlla ak jiital njaboot yëpp ñu jëm ci yàlla lu mu doon yéen ca loola rek des bi moom yéen nu fa nekk yéen nu ko fekk lu ngeen ñu ca wax rek bu dëppoo suñu diine te du bayaat tey defar da ngeen fekk seen yàlla incha allah ñoo ngi sant ñëpp di yeesu di leen gërëmaat yéen mboolem kilifa yi fi teew bàyyi wu kenn ñu ñëwoon keroog yéen fàttali dimbali leen buñ ci amul demuñu la yàlla la jox cër mënu ci dara yàlla gis na lépp xam na xam na xam na xam na lépp itam li ci des rek mooy bu ngeen jëlee rek joxoon nañu sëñ bi moom mémorandum bu ngeen ko joxoon kat ñu tey ñu joxoon ko ñëw ko ren ñu sàkk nag rek beneen yoon itam su lu ko ànd jeexagut fekk jàmm moom duñ leen may jàmm duñ ko may yéen tey du leen may jàmm du ko may yéen nag ginnaaw fekk jàmm amul rek dañu leen lakk dañu leen lëjël dañu lakk dañu leen lëjël donc boo ak ñëw ñu góorgóorlu ñëpp sàkk jàmm wut ko rekk jàmm sa loolu nu boole moo tax ba sañ bi sañoon waxtaan yi itam beneen yoon ñu defee ko nii rek dëral ko noo xam danañ dajewaat certaine loolu sëñ bi yónnee ci yéen wax leen bu ngeen yónnee ci sëñ bi wax rek leen moom moom moom la ñuy moom la ñuy mujj di ñaan tabaaraka wa taala bi nga xam ne moom moo bind bind nu ci kaw suuf melal mu melal def nu lim lim def ci nun def nu lim mooy mooy mooy mooy mooy yàq bu ko saawee ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw asa wa jàll moom mi nu dimbali ba ñun nu daje fi bokk réew mi bokk Sénégal kenn ku fu ci waaye dëkk itam ñu waxee dañoo Sénégal yi donc te dañoo taayee te duñ seet waaye kenn buy seet deretam deret ci morom ji dana nekk ci deret dara amoo dugal loolu yàlla moo dogali ñoo am kilifa yoo xam ne mat nañu kilifa yàlla may na leen baat te seen baat ci yàlla daf lay dellu dafa dellu ci yàlla ngir moom nga def loolu lépp mu yokk noo dimbali yokk noo dimbali yokk dama liggéeyal réew mi liggéey boo xam ne bu sedd la boo xam ne bu ma xool day ci am looy xebal mbaa la mbaa la ñaawal yàlla dimbali na itam ba ñëpp bu ñu xool leen bu ñu xool benn rafet suñuy lépp dellu ci yàlla ñu delloo ci yàlla rek na ko lépp lu koy yàq ak képp lu koy yàq loo mën di ak koo mën di doon nasal ba réew mi bu mu war ak jàmm développement ànd yàlla àggale ko yaay rasulillah sallallahu naan nañ ba nag ba lii tomb yi nga xam ma leeral ko tomb yi nga xam ni moom la ñu buñ ci jaaree mën na bokk ci lii indi jàmm ci Sénégal ma war ko wax ci nasaraan tënk ko itam ci wolof dama daanale nous parti politique mouvement citoyen organisation démocratique et sociale membre du front plus que jamais mobilisé et solidaire dans le combat autour de la conduite des processus démocratiques, républicains, citoyens et sociaux dans notre pays et dans la lutte pour demander l'instauration d'une véritable démocratie politique, sociale et citoyenne dans notre pays, considérons les mesures ci-après comme prioritaires. L'arrêt des répressions politiques et de l'instrumentalisation de la justice pour cibler et éliminer le potentiel adversaire à des élections. Le rétablissement des libertés démocratiques d'expression, de manifestation pacifique, de diffusion libre de l'information. L'arrêt des poursuites des militants de la démocratie et la libération de tous les détenus politiques. L'identification, après enquête indépendante, et la poursuite judiciaire des auteurs, des tueries et des nervis qui se sont illustrés durant les dernières manifestations. L'indemnisation des familles des victimes et des blessés. L'application des accords consensuels issus de la commission politique du dialogue national. Le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en

en lieu et place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. La prise en charge de toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité réelle des citoyens en général, la sécurité et la paix en en particulier. La mise en œuvre des politiques économiques et sociales d'urgence, garantissant la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que leur pouvoir d'achat la prise de mesures idoines pour sauver l'école et l'université, notamment par le respect effectif des accords signés par le gouvernement. La juste solution aux préoccupations des populations, des villes et des campagnes, de même qu'aux revendications légitimes des travailleurs en général, de même que la protection efficace des droits des enfants, des femmes et des jeunes, ainsi que des Sénégalais de la diaspora. L'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques et l'opposition résolue au pillage des ressources du pays, ressources financières, naturelles, minières, gazières, pétrolières, foncières, halieutiques, forestières ou autres. En complément à cette première mesure,

pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale. La perte des droits civiques, lorsqu'elle doit avoir lieu, devra faire l'objet d'une décision prise par le juge en sanction de certaines fautes clairement identifiées et pour des durées déterminées, bien encadrées, en conformité d'ailleurs avec l'article du Code de procédure pénale.

de non-électeurs associés à la carte d'identité nationale et la liberté laissée aux citoyens, remplissant les conditions, bien entendu, de s'abstenir ou pas et de voter quand ils le souhaitent. L'établissement et la gestion du fichier électoral par un organe indépendant de l'État soumis au contrôle des partis politiques. La nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un nouveau doyen des juges d'instruction en raison de la capacité démontrée de en fonction à toujours aller dans le sens de la volonté de l'exécutif, au mépris parfois du droit et de la raison, au point d'avoir conduit à la perte totale de crédibilité de leurs décisions judiciaires. La fin du blocage par le président de la République et le procureur de la République des rapports des corps de contrôle de l'État incriminant des notabilités du régime en particulier ceux de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'instruction de la plainte, la plainte pour faux dans l'affaire Sal Petroti, déposée par le député Mamadou Lamine et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, depuis bientôt deux ans en violation du Code de procédure pénale. ma wax ko tënk ci wolof Sénégal mosoon na fi bokk ci dëkk yi nga xam ne dañ leen doon ràññi ci Afrique ak ci àdduna ndax démocratie ak stabilité stabilité nag du leneen lu dul dal ak jàmm démocratie ak stabilité ñoo ànd bu fekkee ne nag biir réew jóg nañu wàll war a delloo ginnaaw démocratie stabilité maanaam dal ak jàmm day dal di réer loolu moo indi front de résistance nationale teel a jóg di oote ndax mën nañu wax ne 2014 biñ ciy génn fekk opposant am ndam ci Dakar suñu démocratie dafa daal di dellu ginnaaw ndax article yu ñu doon yokk ci constitution ak ci code électoral article yu ñu doon wàññi. jot na nag ndax liñ doon ragal am na jot na ñu. delloo si ci biir Sénégal démocratie bu mën li nga xam ne lii dindi nañ ko ci li nga xam ne nii jotoon nañ ko ci yàq ñu defaraat ko mu mën a ànd ak jàmm ndax wàññi démocratie fépp fu mu am ci àdduna ci fit bu lay mujjee ak fitna ñuy jiital ne nañu bàyyi di rëbb opposant di góorgóorlu jaarale ko ci topp ko ci yoon mu bañ ci bokk bañ a ci mën a doon électeur bañ ci mën a bokk ci élection ba ñu mën ko ci fal loolu moo fi am loolu dafa war a jeex nañu bàyyi itam parrainage bi nga xam ne dara indiwu ko sudul war a ay opposants ñu bañ a bokk élection présidentielle dund nañ ko ndax nag parrainage mën na am waaye parrainage bi ñu taxawal ci Sénégal kenn mënu ko contrôler mënu tane te loolu indi na décision bi conseil constitutionnel génnee ci 13 janvier 2019 mu duggal ci loo xam ne mun na ko doon dëkk ndax parrainage du leneen sudul doon lu ko constitution waxee signature électeur million ak lu ëpp million signature kenn mënu ko contrôler ci biir benn weer mënu ta nekk ñuy wax itam ne bokk nañ ci lii indi fitna ci réew mi troisième mandat dinaa ko def duma ko def constitution leer na ñetteelu mandat yu toppante mënut a nekk kon nañu dalal xel yi dalal xol yi mu leer naññ ne te mu jógee ci ki toog mu mun a wax ne troisième mandat mënut a am waxoon naa ko fi bi moo nekk ci constitution képp koo xam ne mën nañu jàpp ne ñu ngi la tëj ràpp ci kaso bi ndax rek nga doon politique homme politique walla femme politique boo xam ne ànduloo li président di wax li parti bi di wax ñu ngi laaj ñu bàyyi la ñu génn fitna bii nga xam ne Dakar ak Sénégal yëpp dund nañ ko ci bi marché di door gis nañ ci ñoo xam ne bokkuñu police duñu alkaati ñu rëbb xale yi di dóor gis nañ ci itam ñu yore fetal taxaw am na solo te loolu ci biir àdduna convention internationale daf ko bañ am na solo ñu rëbb ñooñu arrêté leen yoon mën a dal seen kaw ñi nga xam ne ñii itam mën nañu enquête wane na ne bokk nañu ci ñi fetal xale ba mag sax ba bàkken rocca am na solo ñu topp leen di yoon itam ñi nga xam ne ñii ñàkk nañu doom ñi nga xam ne nii gaañ-gaañ dal na seen kaw te métti lool ñu ngi laaj itam état mën leen a indemniser am na nag loo xam ne amul réew bu ko mën a dund ba pare di des ci jàmm yoon warut a doxee warul a doxal kumba am ndey kumba amul ndey Euh, gis nañ ko ci of nag contrôle boo xam ne ci ñoom la jógee rapport boo xam ne ci ñoom la jógee ñu daal di ci teg loxo dara topp ci aleelu Sénégal aleelu askanu senegal saa yoo xam ne gis nañu pasar pasar wala yàqu-yàqu wala jël tuddal sa poos buñ ko leeralee war nañ ca topp ñi nga xam ne ñii ñoo indi loolu kumba am ndey nag kumba amul ndey weesuwul li nga xam ne lii dund nañ ko ci fan yu néew xale bu jigéen topp na opposant man naa wax na ci ay waxtu yu néew dossier booba ñu instruire ko ñaari at député ak ancien premier ministre déposé nañu plainte mu jëm ci ñu war a leeral foo boo xam ne dafa leer nañ jëm ci pétrolu Sénégal ak gazu Sénégal ñu jëbbal ko société bu ñuy wax Petrotim te Aliou Sall doon ca njiit ñaari at dégguñu ci ñu ngi ciy sonn waaye ba tey ba sànq loolu nag dafa war a dëñ yoon justice moom dafa nangu kumba ak am ak kumba amul ndey sëriñ bi loolu daal daal ne mën naa ko ci turu front de résistance nationale bi la yebal jërëjëf beaucoup.